barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk di leen ziar di leen màggal di leen ndamool tiitaro te nag moom du woon ay day yu live ah, mais dañ toog nii xam nga mu sedd kuul waxoon naa leen friday bi la ñuy jot xam nga salaire bi day dugg fajar da ngay yeew rek gis sa compte xam nga xaalis bi na rang nekk ci kaw <laughs> sa xool sa xol bi sedd lii de moo gën toog rek toog muy dox jóg daal nek ci mo gën tok muy dox donc loolu day sédal xol quoi da nga tok rek gis ni xam nga sa compte fajar 6h du matin rek waaw fekk da nga don nalaw donc euh, ok ñi ngi wax naan show of the year il se peut que dinañ dañuy concert bi duñ ko du am et tout parce que lépp ci xeex bi la bokk ni dof il est prêt euh, mentalement parce que xam na ni ci xeex la nekk parce que bu fekkee ñoom show of the year dañ koy bañ parce que xam na ni ni dof c'est un patriote c'est un combattant c'est un révolutionnaire mais le 25 a un concert pourtant mais terewuñ ko tax terewuñ ko nag <laughs> parce que euh, ñi fa ci euh, identifié wu parti politique identifié wu ci révolution bi wala mu jaral len ko wala ñi ci gor et tout ça tay euh concert buñ ma buñ ma tuddé ma donc nit dof il faut nga préparer mentalement il faut nga préparer psychologiquement il faut nga xam tu as affaire à des voyous à des bandits à des imbéciles à des vermines à des émerguments donc nga xamni ay vampires ay ay ay nitu nga amal affaire donc nit dof c'est bien préparé quand même donc euh, xam xamna ni nit bu fort le mentalement donc euh, whatever on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Et comme nous venons de on peut tuer un révolutionnaire, mais on ne peut pas arrêter une révolution. On peut tuer un révolutionnaire, mais on ne peut pas tuer une révolution. On peut euh, arrêter un révolutionnaire, mais on ne peut pas arrêter une révolution. Bob euh, François Mankabou, mais gars, un de voir. ray qui un Fulbert Sambou gars continue ngi continuer di wax euh, ray ki nga xam mooy Didier Badji ko acide ba léegi gisuñu ko <laughs> donc sama wax moo moo euh, gars yi ñu ngi continuer di wax tëj nañ fi Pape Alé Niang euh, révélation yi gën a graaw génn na ci diggante bi Pape Alé nekkee ci kaso bi tëj nañ fi Karim Xrum Xax liñ don bañ ñu Karim Xrum Xax wax ko teg naa ko fii nañ lañu rayee Imam Alioune Badara Ndao et cetera kon tey la gën a metti ñoom on peut pas arrêter la mer euh, euh, avec ses bras c'est-à-dire boy daanu dara mënul arrêter dara dara dara mënul arrêter te la foule elle est folle bu ñu jógee di accélérer kenn mënuñu téye donc pour wane ni ñoom fépp fu ñu jàpp ni fii même xam lan la mel néeg bu màgget muy taw ngay bëgg a fatt fépp fu ndox mi di génnee néegu sàkket wala néegu ñax da ngay daw fii mu kiyee fee nga daw fee mu kiyee fee noonu lañ nekk di def ak ñoom te ci xeex dama bugg comme nu ma leen koy waxee nit bu yàgg jox añ yàgg la jox ndekki bu la diggee reer danga koy gëm xeex bi dama bugg ngeen jël ma jël ma jiital ma ci xeex bii jiital nag moom mooy <laughs> maanaam bu dee di am maa yëkkatee jiital c'est pas parce que doo jiitalu leen ma pour fay ma jiitalu leen ma pour jox ma lu ma lekk wala lu ma naan wala transport da ngeen may jiital pour bu dee jotee ma njëkk dee parce que xeex bi dama ko jël jiit la ci ci la ci ne bala ñoo lal Ousmane Sonko man dañ may wàcce ci kaw souf il faut ñu suul ma je serai sous terre tant que ngi dund ku lal Ousmane Sonko ma jaay la sama bakkan donc di ngeen may jël jiital ma ci xex bi comme man parana pour sacrifier pour yeen ngeen dund comme man nee man may def suicide individuel pour une résurrection collective man je suis prêt pour dé pour yéen ngeen dund kon jiital len ma ci xex bi xex bi nak xex la bo xamni yalla moy mooy jël benn porteur jaarale ko ci mom parce que xex bi Pape la Niang bi nga xamni man dama ko jiitaloon sax ñom ils ont arrivé pour achever ko mais ma continuer flambeau bi ne du daanu donc man mi yalla may ma am opportunité ba nga xamni ñom mënu luñ ma dara donc tay jox ma xex bobu ma jiite xex bobu day gëna a yomb ci yeen yomb ci man parce que man mënuluñ ma dara té mun naa wax amna verbe amna fit amna bop je suis très réfléchi et puis mun naa domter une foule mun naa wax une foule parce que dama ci mag je suis un rappeur donc je suis un leader leaders are readers je suis un lecteur voyagé naa partout dans le monde amul benn leader bu nekk ci xeex bi jay tey jii bu ma ëpp expérience ci xeex bi parce que rappeur la yàgg naa taxaw jàkkaarloo ay foule des monde di rap di wax di discours ak ñoom donc loolu ci loolu laa màggee rawati ci ma voyagé wër adduna liiri bug expérimenté am bopp ñu may ma nopp yàlla ne kii moo jiitu comme yàlla daf ma jël jiital ma jiital leen ma ci xeex bi te bu leen ma fay bu leen ma ne sax merci ngeen toog seetaan ma bu ñuy xeex nag mënuñu xeex am ñoo xam ni maîtriser wuñu xeex bi génn ñoom ku ci nekk parce que live live dafa yomb ku mu nekk taal wax lu la neex génn ne ñoom dañoo bokk ci parti Ousmane Sonko bu ko defee live ne dañuy wax ak man am ñuy jël vidéo dina moo laa déglul ki du ma déglu parce que ñooñu xamuñu dara ci xeex bi ay xeexkat lañ nak mais xamuñu dara ci xex bi information yu may am amuñu ko accessibilité bima am amuñu ko droit à l'information amuñu ko donc ñom dañ may juger ñoom te ñoom waruñu ma juger dañuy juger ñi may juger mais buñ jëlé ñom seen live spécial né dañuy wax ak mola mola n'a jamais jamais au plus grand jamais écouté ben doomu adam bu def live wax ci mola muy lu bax muy lu bon musuma ko déglu tay ajjuma la man mane barki aljuma ji billahi wallahi wa ta'ala barki alquran bu fekke ni musna live ben doomu aadama bu nek senegal di wax ci mola soit lu bax wala lu bon ma deglu ko yalla ma safara jël addi yalla ma ak Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yowmal khiyam duma deglu kenn dama braqué wu ci sama combat dama nek ci lima nek xam lima nek maîtriser lima nek di ci xey di ci gontu daf ko sama kenn dama gumba teukh kum neex tala sa laay wax la neex foog ni da ngay conseil mola wala non mola bu defee li loolu sa xel la garde-le pour toi man je suis dans un niveau bo xamni de combat bo xamni yow munoo imaginer fan la nekk ci ban niveau la nekk ak nan la nekk di liggéey gaay yi xool leen man nimay déjouer ay sen plan xool leen numay déjouer sen plan yi président Macky Sall ak jabaram wop bo pap Alé pour waxtaan ak moom invité ko kër Mermoz Pape Alé Niang ñëw dugg rek ñu woo ma pale woo ma vërëb wop moo laa dawal dawal dawal joxe information bi Pape Alé Niang ngi nii toog ak Macky ak ak ak ak jabaram dawal joxe information bi comme quoi Pape Alé Niang mi ngi ñëw di jaay seen komba kan moo ko yëgoon Sénégal ku dul man te pale ñoo ma woo pour ma dem jaayi Pape Alé Niang ci ci internet bi ci guddi googu noonu ma def tekk Togok, lolu tok parce que dans ma tête je me dis que mais ñii intention bu baax taxu leena jog jóg bëgg ma dem yak pap Alé man ma yak pap Alé Niang yow maa ngi yàq sama bop ñi nek ci benn combat ma yak pap Alé moy yak sama bop ma dem fenel pap Alé moy fenel sama bop parce que pap Alé suite logique lak man ñun ñoo bokku on est des maillons de la chaîne waruñu éliminante waruñu yakalanté buñ amé sax luñu waxanté dañuy jël appel waxanté ko ci appel pap ala ñaa man xamna ni nit bu goré la bu dëggu la bu doon day jaay ngorom jaay nako bu yagg ma def tek tok ci document boobu ñu journaliste ñu kenn ci sénégal 17 millions man lañ wo ma def tek une semaine waxuma man musuma wax ak pap ala c'est la première fois ma wax mom ci live te yéen a ko déggandoo première fois ma wax ak pap ala ñaar yéen ko dégg ma def tek tok ci bagage ñu wowat ma mais mola la ala ñaan paré na sax genn na quoi mais amna lu mu tégg Macky Sall amna lu mu tégg ci loxom di fénal ma def tek ñu toga deuxième jour mola mais lu tax nangoo wax ci Pape ala ñaan wi ma def tek ba ñu semaine buñu japp jàpp ala ñaan xam nga mënon na genn ma commencé saga nday ñu woma ma ne ma non Pape ala ñaan deful liko Macky Sall waxon wala limu waxante won ak Macky Sall defuko lolou loolu tax ñu tejj ko mais dafa ndank léegi léegi lan moo tax ma teg stratégie di leen saaga ay ndey parce que je sais que il fallait moment boobu ma yéegal niveau niveau de combat bi pour ñoom ñu mun ko bàyyi. parce que ay nit lañ yoo xam ni dañuy jaay ay ngand lu ay ñu am ay valeureux ay ponkal ay ñun njiit lañ ñun ay autorité de la république lañ ay xam nga ñun ay nangam nag ngand ngandlu léegi pour toucher à leurs orgueils da ngay saaga seen ndey wala nga saaga ndey seen sëriñ yi. wala nga saaga nday loo xam ne daf leen jege dafa nekk ci xol boo ko saaga nday rek dañuy laal parce que da nga leen danga leen fekk ñu yéeg ci ab nga ndam fauteuil nga damm fauteuil bi maanaam nga toroxal leen devant les sénégalais wax seen silibu nday yi seen belefete nday yi wax seen seen stringu nday yi wax seen mbabal 45 baay lu musul dégg te ku leen ko wax Sénégal ñu lekk la ku leen ko wax Sénégal ñu laal la moo tam ma taal stratégie boobu ne léegi au lieu di dem di yàq Pape Alé ci ñoom nag laay ñëw dugg nag ci seen selibu yi nag visité ko ma commencé dem di indi di def opération dëmm bi nga xam ni daf seli wu dang au sommet de l'État affaire bi yëngal affaire bi sonnal leen lool waxtaan yi commencé appel yi commencé mais moo noo jàpp bàyyi saaga yi non moo laa bàyyi saaga dinañ ko libéré ba bu ñuy libéré Pape Alé man lañ woone dañ koy libéré bu mu génnee man may la première personne bu ma wo te papa Alé Niang xamul ni sax man gaay buñ ko wowe fofu audience am bobu bu muy dugg bu muy genn yépp maa ngi ko yépp lol papa Alé Niang bu mu yónnee soxnam ne ko demal nga wax mo jox ma nga jox ko Pape jabaram woo parce que papa Alé bu mu nekk ci kasso bu muy genn amul luma ump ci dundam amul lu mu ump ci dundam ma ngi yoni samay nit ñi ngi ko fay fekki ñi ngi wax ak mom tout te ba legi waxumako ni yow am nga audience ak Macky Sall ma def tekk len man bammel la bammel xam nga luy bammel dama ne lu duggu ci man sulu bammel la nit bo xamne mbedd moma yar dama mun garder secret dama mun xam aduna li fi daw yëpp tok ci ma ne man bàmmel laa ku bëgg a denc sa secret jox ma yow mal xiyaam laa la koy dellooyee ma def tek dëgg information ba Pape Alé bu mu génnee jabar ji woo ma ne ma Pape moo bëggoon wax ak yow parce que ñoom ñëpp seen soxna yi maa ngi leen di dégg de naa leen wax dara de kenn ci um tey tey tey laay mujj wax ak soxna yi Karim Xurum Xaq am benn maanaam ab xéwal bu ma ko waroon jox

boko yone nungke ni nga ko bëggee lañ la koy défalé ni nga ko bëggee ki né jëlal ma li joxal mako parce que Cheikh Omar dia ñaari soxna la am ñaari soxna sha allah ay soxna yu mu yar ay soxna yu am diiné ñoko ko duróol lañ cey def bo né joxal ma pap Alé ñu joxal la pap boo nee joxal ma Cheikh Omar Diagne ñu joxal la Cheikh Omar Diagne boo nee joxal leen ma Karim ñu joxal la Karim lu fi Karim teg dañ naan Karim temps nga am fi mu ne indil leen ma temps joxal ma temps mooy li may wax Karim bu ma kenn ne jërëjëf bu ma kenn ne merci dafa mel ni ab kilifa bu indi saaku ceeb këram jox ko njabootam bu ma kenn remercier bu ma ci deful du ma ci wàññi Jup, koch loy def ragal yalla manu ci yefu jambour kese maintenant Papa le bamu mu génnee gram ne mune ma wa sant waay bay ay boy yow jaaxal nga wa boy kasso bi yep yow lañ fi mola, mola, laa moo laa sax grand mais booy ni nga def ci kaso bi <laughs> war ko grand gars de noonu la demee quoi même Cheikh Omar Diagne bu ñu ko yóbbee rëbës bu mu génnee loolu la njëkk a wax jeeles yi moom dañ may béggee saasu ne ñoom ñëpp dañ may béggee àdduna moom xanaa naafiq mais doomu aadama du dox te béggee woo ma alhamdulilah maa ngi koy sante yàlla delloo naa leen lépp mu ne ma man kay <laughs> fu ma toog laay toog moolaa moolaa sama silil moolaa moolaa moolaa moo garde yeeg kenn bàyyiwu la ma ne ko grand àdduna tey dafa am solo grand est-ce que xam nga ni ba nga duggee loolu moo indi live bi de ba nga duggee bañ la woowee kër Macky sàll nga wuyu ji est-ce que xam nga ni dangaa toog ci salon bi rek gars yi woo ma mu ne ma ma ne ko wallaahi explique ko lii moo tax lii lañ ma wax lii lañ ma wax dañoo bëggoon ma yàqatale génn yuuxu loolu ne yaa ngi wóob wóob Pape Alé ngi nangam ak nangam Pape Alé ne mbaa wax nañ la li ma wax ma ne ko grand mbaa wax nañ la li ma wax Macky Sall ak jabaram ma ne ko déedéet mu ne ma Mollah taalal live bi loolu moo indi live <laughs> ma ne ko grand li ma bëgg a wax bul ma ko wax ci suuf nañ taal live bi ci kaw Sénégal yëpp dégg nga wax leen li nga wax Macky Sall ak jabaram loolu moo indi live bi ba ma woowee dama ko xamal ne ko gars yow woo nañ ma pale di ma wax ne yaa nga fa mu bëgg ma ko raconter ma ne ko déedéet loolu sénégalais yi ñoo ko moom loolu moo tax ñun ñoo wax Pape ale ma posé waat ko question ci bu ma ko posé question ci biir live bi ne ko grand danga nga demoon kër Macky Sall mu ne la mbaa wax nañ la ñu ne ko fa wax troisième mandat coow loolu bokk na li tax ñu jàpp ma bokk na li tax une semaine lañ ci teg ñu ne ma kabaj sans dossier ni rien Pape Alé leeral na ko fii ñëpp loolu moo indi woon live boobu waxtaan la woon ci suuf ma ne ko nañ ko yéegal ci kaw wax ñu amul lu ñuy nëbb dox ci deug di wax deug mu ne ma booy tey laa la gëna japp non mu ma man mom dama feebar damay faju ci mais jital yow jital xex bi <laughs> mané ko non grand ba mané ci grand boy jital xex bi boy té super intelligent boy bu doon ñu tëñëx tëñëx yi gënë nañ ba yuuxu ko mais gis nga sa tekkaaral gi xolal temps bi nga jël jox ko avant bobu ba buñ may japp ba bu may génn coow jibul bal tàkku lépp nga xam ko toog booy doo nit jiital combat bi un leader dafay am ay qualité qualité yooyu noonu day bokk ci mun a muñ mun a toog mun a dëxuñu xam noppi xaar moment opportun kañ ngay dóor kañ ngay déstabiliser un leader il faut nga am benn formation bu garaaw boobu mun a dox pour nga mun a jiite yenn combat buñu jité nak c'est pas lo xamné dañuy genn ma jité nak ku nek dafa tok nak ah, ñun ñep ñi ngi tok ku nek di wax et cetera mais lolu moy éveil de conscience maintenant lolu pap Alé muy stratégie pap Alé ñëw wax na lu leer nañ ñep gis nañ ko di ñaanal jamm wër guddu fan demb Cheikh Omar Diagne tam bamu mu soxnam ne ko joxal ma mola mu liral ma li liral na len ko ma liral len ko nima ko Cheikh Omar Diagne joxe ku ci nekk ci ñoom maa ngi dégg say soxna maa ngi dégg sa njaboot maa ngi waxtaan ak ñoom te ñi def effet ak acte yooyu rafet yooyu macha allah yal na leen yàlla fay yal leen yàlla fuulal loolu waaw loolu waaye joxe dinañ koo yeggale dinañ ko yeggee fa mu jëm ñi ngi sant yàlla nekk ñu Sénégal am nañ li ñuy liggéey ñi ngi lekk yor na suñu xaalis ñu lépp dal na soxlawuñ dërëmu kenn lu fi waay joxe waa dina ci jot te ko par ben, mi lep, envoyé li def parce que de ñëw ne dañuy jité rew dañ koy ci donc ñun ñoo wara ci yoon dañuy jité rew les les les les plaisirs mondains ay les alal ay Banner bakkan Lu yip dañ koy dëddu bu Sénégal donc mënuñu woote ci defar Sénégal ba pare di sàcc ak tiriyande ak dagg ci ay affaires yu sew di ñu lay jox nga koy sàcc ak yooyu mooy damay bugg lu leer nañ naññ naññ naññ naññ man noonu laay liggéeyee mi ngi nii tijaane ngi nii lépp lu waay yoon yónnee dañ koy teg lépp lu waay yónnee mi ngi envoyé yaa ngi nii lépp lu waay yónnee dañ koy teg ak ay audio mi ngi ni envoyé yaa ngi nii taag tijaan day yónnee mi ngi ni envoyé yaa ngi nii taag lépp envoyé yaa ngi lii en lii en lii lii envoi la tag beneen envoi gi ni tag man ak Tidiane li ñuy wax beneen envoi gi ni tag beneen envoi gi ni tag nii laay jëlaatee yëpp yónnee ay jabaram seeni jabar yi ñoom ñëpp vroup mu dem ci euh, jabaru euh, euh, Cheikh Omar Dia ñaar vroup mu dem ci jabar Karim Xurum Xaax vroup mu dem ci seen jabar yi ñu jot lépp de Tidiane à mois de mois si seeni seeni jabar mu leer ñi ñu xam ne lii lañ fi dugal lii moo fi nekk ñu teg yoon ci njub Sénégal buñ ko buggee defar dañuy jub mënuñoo dëng bu defar Sénégal nee naa leen koo leen bëgg nit bu joxee un franc ne ci jax laa bëgg mu dem dinañ la jëlal sa un franc boobu yónn yóbbul la ko ci Amidia

Euh, on n'arrête pas la mer avec ses bras, le combat continue. Nidov est un fervent défenseur des droits euh, euh, et liberté. Dina nekkat ci la musique préfet arrêter. mo préfet hip hop. Donc on va continuer a une forme de lutte, Il y une forme de contestation. Il y en a plein. yamul ci ben concert concerts. la vie ne s'arrête pas dans pour sur un concert on continue le combat et tout etc etc let's go guys képp ku bugg a jot numéro boobu boobu ma envoyé message ma yónnee numéro boobu ok guys donc ñu ñu dem comme nu ma leen ko waxe Pape Alé Niang tam def ci liggéey ju rafet macha allah yàlla na ko yàlla fay yàlla ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla muccal te musal ko.